sëñ Fallou Mbakkeem sëñ Baara Xureji mi ngi nii toog ak maam Cheikh Mbakke moom sëñ Xaadim Awa Ba ak waa Reyes yëpp ñu may Cheikh Mamadou Rafael bismillah su ko defee ñun ñëpp ñu déglu ko. bismillahi rahmaani rahim. asalaamualeykum wa mbokk mbokku Afrique mbokku Sénégal mbokki réew mi noo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul sëriñ Abdul Fattah mu jële ndigal li ci jëwriñam a Cheikh Mouhamadul Bachir mu jële ko ci sëriñ Abu Baraka mii di xalifatu Cheikh El Hadji Mouhamadul Fadal kàddu yi nag li ci ëpp Serigne Mouhamadul Mamoun tudd na ko waaye damay tënk sama kàddu rekk ci ñaari tomb bu jëkk ba ñu seedeel àdduna bépp ne kër Sëriñ Fallu ci ndigal rekk lañuy dox bu ñu jógee di dem ndigale leen yëkkati bu ñu jekkee ndigale leen jekkiloo moo tax bi ñuy séentu bés bi laata weer wi di tàmbali euh, la sëriñ bi demoon ca sëriñ Mouhamadul Muntaqa mii nga xam ne moo fi nekkal mooy sëriñ Tuubaa tey yàlla na gën a yàgg nekkoo a ah sa bisub wayjur wa day eh, <clears throat> weeram a ngi bëgg a jub léegi nag tàggu si eh, <clears throat> yëgle si wuñ dañuy tàggoo si laaju ñuy ndigal it ndax boo nee sëriñ bi digal ma nangam danga koo jox ndigal waaye dañuy tàggoo mu nekkoon nañu ko def nañu ko daa defee danaa ko ànd ak yéen yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko sëriñ Abu Baraka nag sant sëriñ Abdul Fattah mu santal ko bokk yépp gannaaw bu mu sante yàlla li muy sant yàlla mooy ñaanoon na daaw ñu fekk ren yàlla may nu ko ñu ngi ñaanaat yàlla ñu fekkewaat waat déwén li ma ne kërug ndigal la nag dañu ko teg ci ñetti wéeruwaay yu dëgër lii waxe suñu boroom la mooy lépp moo ne woon jullit yi lu leen yónent bi digal na ngeen ko def te li ko tàmbalee tey na ngeen fexe ba bu mu leen séen ci lu mu leen di tere wa ma aatakum rasulu fa xuduhu waaye yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam it ngir gën ñoo jegeleel waxi suñu boroom ci moo ne déet ku ñuy déglu ndigalam kat du yam ci man daal waaye fu ngeen àndatee di ñett sax jiital leen kenn déglu ndigalam sëñ bu mag bi bind ci ay mbindam ne bu kenn damm xat te amu ca ndigal laa tafaalu cheyan bi geyri idni fal idnu chartun fi qabuli shani kon foofu la ñu teg woote bi ne su sëriñ bi ne woon nañu ko fommit kenn dutu wax lu ci jëm desu ko naneete ndox ñaareelu tomb bi mooy sëriñ bi dafa ma jox ndigal ñu wane tuuti ci dunduk sëñ fallu gi bu ñu noppee kenn ku nekk jàngat ci fa mu nekk ba xam boroom dund gu mel noonu jar na wuy ji bisam walla jaru ko lu yaatu la waaye dañ ciy tànn benn rekk boo xam ne dana neex a jàpp te dana mën a dana yomb ñu tegloo ca nit bët jaarloo ko ca ci ay tànkam bokk yi ñun ñëpp xam nañu ne Sénégal euh, bu ñu xoolee lim amagun bi mu beroo ak tey bim mu sampee boppam ak léegi bu ko seetee ci dundug nit sax bariwut waxaale wuñ dundug réew waaye diggante bi jiitu Sénégal di ber njëlam tuuti ci misaal ñi nga xam ne bi année cinquante yi tàmbali fekku leen fi ñooñam kenn mësu ca dugg këram bii ab robine xel ndox waaye bi senegal demee ba ber njëlam it eh, ñi fekkiwut bi Sénégal di ber njëlam mosuñoo ñëw Touba jaar ci aw yoon ñëwin wu metti lañ daan ñëw rawatina nag dugg ci sëb néeg laal dara rek làmp yi na ray tàkk li may lim nii maa ngi ñëw ci li ma ci jublu waaye ku ne xam na ne it ku fi Sénégal di ber njëlam fekkul mosoo jëm fenn ci tuubaa ne naa jaar ci mbedd sàngam ba àgg jàdd waxaale wuñ julli juma ci jumaay Tuubaa ji wala ngay yónnee marché Ocass wala poste de santé bi dispensaire la tuddoon bi nekk 28 wala ngay jot bataaxal boo xam ne Tuubaa lañ la koy joxe wala télégramme ñu naan ko wax télégramme bu njëkk ku ko mosaan dégg dangay ngay defee ne àdduna tukki na yooyu nag ma lim ak yi ma limut tam na gàññi ci jamonoy Sëñ Fallu la fi ñëw li ma ci bëgg a jàngale mooy yooyu yëpp am na Tuubaa ba Tuubaa xeb la boo ko mën a jóge dangay jaar ci aw yoon ba àgg sa mbubb du fagg nga ñëw dangay def nii sa kër rek robinet bi di xel ngay jaar ci mbedd sangam jëm kër diw euh, di taali làmp waaye bokk yi loolu li ma ci bëgg a jàngale rek te sëriñ bi sant na ko mooy moom la lislaam di wax al ithaar moom la aaya ba di wax ne di wax ci saxaaba yi ak seeni jikko ba naan wa yuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa yooyu ma lim yépp jamono bi mu koy indi Tuubaa feneen fu mu joxoñoon ne dañ ko fa yóbbu ci dëkk yi mu sanc te daa fa liggéeyal Sëñ Tuubaa ñu yóbbu ko fa waaye ndindi gi gën a jege Tuubaa 2010 la fa ab tali dugg 2010 kon yor li nga yor ñépp soxla ko yàlla teg ko ci sa loxo nga séddale ko ba mu jeex te wutoo ci sab cër loolu sëriñ bi nee na ku fi jógee na ko jàng yóbbaale ko ba déwén ba lu mbokkati aku nit bu leen ko munta bàyyee it kenn ku ci nekk mu cof ca jox la waaye nag ku def ni sëñ bii defit moo gën ni sëñ Fallu def moo gën séddee séddale ko toog eh, fëgg say loxo kon benn tomb boobu rek laa ciy jël doy naa jàpp bañ fekkewaat ko ci jàmm waaye it waras na cee mën a jàng ci dundam muy léebu wi nga xam ne arab daf ko léebu woon bu yàgg kun isaamiyan wala takun idaamiyan isaam benn doxandéem bu ñëwoon ci dëkk la amut fu mu fanaan te mu gën a jafe yendu moom yomb na nit mën nay wër ci mbedd yi ba jant bi so Euh, léeg-léeg sax am ku ko kàkkalu ne ko kay barkeelu waaye fanaan a gën a jafe waaye moom sax fu mu yendu woon daa jafe ndax ku ko xool ni kii ku mu doon daana am ci Touba bu yàggutoo bi jumaa ji wax ak waa Touba gépp ci benn yoon daanañ def bu saxaar accès ñu xool waajoo xam ne daal day wër mbedd yi dugg ci genn kër ñu ne ci jumaa ji teykat ku yebu teel a fatu ndax dëkk bi am naw gan ensemble nag nekk di wëndeelu ci dëkk bi ci gàttal ba xëy na léng ba saabu buur di wax day nit ba ay agsi mu soog a wax wala mu soog a jëf moo tax ñu daan léeb na nit ku nekk war naa fexe ba nekk ay sa jëmmi bopp self made man te bañ a nekk may doomi diw rek sëñ Fallu dey borom tubaa moo ko feeñal ci jamono dalal ko jàng fii ci Darou Rahman moo ko sëriñ Mouhamadul Moustapha sëriñ Amar Mbakke Galongal sëriñ Masamba xawle na ñam tuuti mu boole leen ak sëriñ Abdou Rahman Lo gannaaw bi sëriñ Fallu dem ci loxo loxoy maam Cerno ak loxo loxoy maam Mor Jaara waaye jaar-jaar yooyu mu jaar ci ndigalul sëriñ bi yàqu ko yàqu ca dara ndax ñaar fukki at ak dara yi mu fa nekk ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ndigal lii ma tàmbale woon rek ca la tënku woon lu Cheikh Mouhamadul Moustapha sottal loxol suñu falloo nga ca ci ay taalibeem ak astuutam lii dañ ko ko daan sas lii daf ko daan yóbbu rek xam ne mooy Sëriñ Tuubaa gannaaw bi mu fi nekkee ñaari fukk ak ñett nag ci ay at euh, daa daa daa jëloon yoon yoonu sëñ bu mag bi def na bind na wax na bàyyi fi waaye mbindam moom ak jëfam jooju dafa war a jolli ñenn ñu nekk buñ taseeg seen jamono ñu gis ca seen bopp moo taxoon saa boo ko mosaan wax rek mu ne borom barak bi rek borom barak bi dem na ba ne sax moom ki ko doon jottali naa ko ab taalibe rek la bëgg a doon mu ne bëgguma doon ab taalibe sax xanaa ne dëxoos ci biiram rek loolu nag daa mel na yàlla defal na ko ko ndax taarixu murit histoire bi ku cay wax te li muy wax di dëgg li ko tàmbalee Touba moom daanaka Touba suñu fa la tofam Touba la am tofam la ku koy wax te muy te la muy wax dëgg moom faw mat dana ko ci limaale bu ko limaalew ci njëlbeen ngi dana ko ci boole ci ginnaaw bi ndax bu ñu ko weddee nañ dindi te liy jëm si Touba yépp dindi mbedd yi dindi courant bi dindi ndox mi dindi jumaa ji nettali ma ko kenn ba xam danañu amati Touba wala déet kon boog suñ bee ko jur mooy way juram waaye nag daal takkaat laxasaay ginnaawam loolu it njàngata ngi fi ci ne kenn ku ci nekk luñ defar ba teg ko ci sa loxo Eh, wërta mel na meloon su melee na meloon ba ka la ko dénkoon ñëw sax yàq nga waaye dafa war a weesu moo tax léeg-léeg ñu naan diw bu suñ mag bi ñëwaatoon du sappi jataayam am xamkatu wolof bu ne ax akay sëñ bi mag bi ku mu fekk nga toog danga nga soppi sa jotaay wërta wërta fekk kenn taxaw kenn kenn toog daa war a fekk ñëpp taxaw moo tax ña doon wax tañ naan dañoo ànd ak seeni xel kenn ka dane moroom ja xool fotob suñ mag ba yàgg mu ne xanaa kii day taxaw rek moroom ja ne ko kii bu toogee musiba am waaw loola njàngale mu réy la kon boog fi may jeexale mooy jot li cant sëriñ bi ci ministre Matar Ba ak ki mu àndal professeur ministre professeur Mame Thierno Dieng ak délégation bi nga xam ne lim lañ leen ci gouverneur ci préfet sous préfet ak ba ci maire bi ba ci chef de village bu Touba ak délégué de quartier yépp délégué de quartier yi nag li leen ci boole mooy màggalu ren ci góorgóorlu gi suñu fal doon góorgóorlu ba gannaawam mel nii mu mel euh, sëñ bi doon dalal daaira yi nga xam ne ay soppee suñu fallu lañ tudd te mën nañoo bañ a xam kenn ci njabootu suñu fallu tey ñëw fii ci kër suñu aboo di ko jébbal seen ab liggéey kooku nee na ma léegi ëpp na juróomi téeméeri daayira yoo xam ne daanaka xamu xamantuwuñu njabootu sëriñ bi sax waaye mbooroom sëñ bi lañuy topp kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di beral ak cant di leen xamal na kër gaa ngi nii nekkal fi ñëpp ne suñu fallu nekkale woon ñëpp suñ fa luy doonoon misaal ci wuuf ñépp laata muy xam nit ku weex ku ñuul walla diina ju mbokk ndax mas na ne mooy Sénégal doon nañ ko waxtaan daaw ca CRD ba Sénégal ñett yi ñuy xool walla yaar e, benn bu ci nekk daa am spécialité ndax Sénégal dangay gis ci tampon yi ñu def ci ak guy guy ku ne xam na njariñam waaye dangay gis tam ñu def gaynde gaynde it ku ne xam na jikkoom ku gore la ku mën a muñ la gaynde lu xiif xiif du du lekk te am ñaax day xaay ba yàlla dikk rek mu jariñu si jox ko keneen koo ko jariñoo ko kon ministre euh, Makhtar Ba ak ñi nga àndal ñépp sëriñ bi nee na mi ngi lay yóbbante di la fay ab nuyoo ci kilifa réew mi di la xamal ne ni ko suñu Abdou Lahad Ka waxee lu wér la yiñ ko waxoon daal te mënul te magal gi mënulu ko boppam yu ci baree bare moom gis nañ ko xam naa ne lépp moom yàlla mi ko man sax defu ko defagu ko bopp waaye lu ca bari daal gisees na ko mooy yi nga xam ne mënu magal gi mënulu ko boppam indi fi ñuy taxaw ci kaaraangeel nit ñi ku ci wéree di mu faj la bu ndox amul ñu wuti ko yooyu moom màggal gi mënul ko boppam kon nag wuutu gi ngeen ko ci wuutu sëriñ bi nee na mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan ci réew yi jullit yépp di fedd li kóllëre ak ñi nga xam ne yàlla dogaloon na ñu tàmbalee jaxasook moom waaye ñi nga xam ne it bis bee leen fi indi tey nee na mi ngi fasante ñoom kóllëre te fas ko yéene sàmm bu baax a baax a baax a baax kàddu yooyu daal la sëriñ bi waxoon ne dañ ko jot li gannaaw bu mu ñaawloo it euh, ci réew yu sori ya nañ fa defoon jullit yi fan yee mi ngi koy lu lool di ñaax euh, réew mi ña ca bopp ba mu jaar mën naa jaare ci yéen Maxtaar Ba ak délégation bi nga àndal ñu xam ne euh, diine suñu borom ji moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon fu doñ suuf yàgg sax bu fa amee kar dina ji dana fa mas a àgg yàlla amul fenn fu ñu ko wërta jaamoo amul fenn amul place bu ñu ko wërta jaamoo amul réew mu ñu ko wërta jaamoo kon nañ ci gën a jàpp ñaan jàmm tey dox jàmm te xam ne jàmm ci la lépp xaj di métit lu loolu suñu dëkkandoo yu ñuy jege muy Mali la fa am bu yàggutoo sëriñ bi nee na yooyu ak yekku ya ca des yëpp yàlla na fi yam ci barke bisub sëriñ Fallu bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la yóbbante waale ñoroon la dama ko doon séeramtal fàttewuma ko muy ñu gën a dolli yërmande ci nit ñi gën leen a jege it ndax léeg-léeg nit soxla loo xam ne lam cay daj coono bu metti lay doon te bu fa àggee it kam fay fekk yërmande jëm ca war a ëmb day xaw a des sëriñ bi ne mi ngi leen di yóbbante loolu ginnaaw moom moo fi nekkal suñu fallu te suñu lu ñi mu fi gënoon nekkal nga xam ne saa bu ñu mësee ñëw ñoom lay àndal mooy ñi gën a néew doole ñi gën a néew doole kon sëriñ bi nee na mi ngi fàttali loolu di sant nag ci li weesu tey ñaan yàlla ñu fekk ko déwén te déwén gàcceel ren doonte ren alhamdulilahi rabbil alamin kaddu yooyu la sëriñ Abdul Fatah waxoon ne naa ko jottali ci ndigalul sëriñ mu jaare ci sëriñ u Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal lu ci jotut rek sama ma xel neexut mënuma koo jàpp nam ma ko waxe woon waaye luñ ci mën a dégg rek daa fekk loola laa jàpp di sant itam dellu sant sëriñ Mouhamadul Muntaxa di ko jaarale ci Cheikh Mouhamadul Bachir mii nga xam ne moo jël kàddoom wax fi kàddu yu rafet di ko xamal ne daal que suñ fallu ñoom ñëpp ñi ngi takku ci ginnaaw sëñ Abo di gën a jaaya leeral ñëpp seenug jaayante di gën a leeral wéral seenug jaayante di ko seeral àdduna bépp ñoom njaboot gi ci Cheikh Mouhamad seen sëñ Abo Baraka waaye sëñ Abo Baraka it nee na mi ngi fàttali ak laxasaayam ak jaayanteem ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha lépp loo xam ne daf koy def loo taalibe yi daal noo ngi nii lu muy def ci taalibe yi it ñi ngi nii soxla nañ ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa